tijani sama waay la jàmm ñal jaara busuk wala man se bi jaara yàlla boole jégal yàlla teew ko ay déwén yu bare bare bare yàlla defal ñu jàmm xam nga di ñaanal bépp mbooloom jullit ak foo mën a nekk rek ñu nekk ci hôpitaux yi xam nga tam war ñu leen di xalaat ñi nga xamante ne aussi caabi daf leen féete ginnaaw xam nga ñu leen di ñaanal yàlla na leen yàlla génne ci li ñu ne xam nga ndaxte voilà ñun lii rek lañu am quoi waaw léegi am euh, ku xam Bambaali xam ne temps bariwul euh, ku xam Bambaali xam ne boo ko gisee soirée mu nga ko fekk wala nga fekk studio muy liggéey euh, amul temps du taxawaalu ci mbedd du taxaw fenn tey ñu gis la fenk la fii tey Faramaran di gétt goo xam ne Paco moo moom Paco xarit Wally Ballago Seck di sa mag waaw Paco Pa Maodo Ba bon woowu réew yi tey sa taxawaay fii yaakaar naa chaque année ñu gis la fi mais ren da nga jël sa xar wala na nan la demee noonu waaw xam nga yàgg nañoo defal teranga ndaxte mën naa ne daral bii nga wax boo xasee ba ne faramaaren rek nee nga bàmbaali nee nga waali ak képp ku bokk faramaaren waaye xam nga jamono day dox dañuy màgg xam nga te bu ñuy màgg aussi tamit waaw jom ji day yokk bëgg-bëgg bi yokk yàlla déelee bu defee dara ci poche yi nga xamante ne que yaa ngi am ay tànki kanam faaw nga fas jom nag xam nga ñëw ba tax na ma ne xaar ba ñëw tey moom soxlaw ma sax ku may jox wala di ma may non non damay yëkkati xaalis ne xolal lii maa ko ci def damaa bëgg xar loolu yëpp nag du wane ne que ne danga am non non c'est juste pour rek maanaam wane jom xam ne tamit aussi ñu ngi commencé jël mag ñu ngi commencé jël âge et que xam nga man bëgg man man mën naa ne sax su ma ñëwoon nii nii nii léegi ne bii laa bëgg dañ ma koy jox waaye xam nga àdduna tam tolatul foofu lu yomb baaxul xam nga faaw ñuy dimbalante di jàppalante xam nga moo tax ñu ne xaar ñu doxantu si rek mënoon naa jëndee feneen mais fii xam nga balaa maa dàq mu jëm àll ma dàq ko mu jëm kër waaw kay def ci sama participation tey dama jënd waaw tey ce que du li dëkk bi metti euh, gis nañ ne en dëkk bi dafa metti xaalis amul euh, képp ku doon rey benn xar pour nga rey benn xar day jafe est-ce que du aussi Wally Ballago Seck euh, gis nañ ne en fait aussi tam seen yaay Mama Diaga tey mooy dernière tabaski boo xamee du ngeen ko tabaski ak moom loolu nan la la ah, mais loolu nag sincèrement bon su ma ko waxul sax nit ñi xam nañ ne segam ñi nga xamante ne ñoo bokkul ci askan wi de loin ñooy am lu leen naqari waxuma la ak ñun waajur dèjà dafa doon loo xamante ne dafa dafa dafa dafa dafa garaaw xam nga nga nekk ndaw nekk ci àdduna di reyante plaisir bi ngay am mooy say waajur di la xool ñiy lekk ci sa njariñ xam nga ku ci mel ni tabaski bi bu ñëwee nga ñëw fekk sa yaay nga ne ko sa xaral mu ngi sa xar ngi nii fekk sa fekk bàyyi booy ne sa xar ngi nii loolu plaisir boobu en fait mënoo ko méngaleeg dara waaye nag bu ñu fàtte ne yàlla suñu borom moom moom adduna boo defee boo bu ñu xamee loolu rek dinañ ko dinañ euh, maanaam dinañ ko jëlee dinañ ñu xaw a apaiser tuuti parce que loo xamante ne mënuñu ci dara moomuñu suñu bopp ñun bu fekkoon ci ñun rek la la la la des yaakaar naa kenn du dem xam nga mu doon lu metti pour la première fois tabaski jot te gisuñu mama jaaga noonu la demee woon ci Papa Thion mhm. xam nga moom yi suñu mag ji xam nga ñu leen di ñaanal fële ñu ne yàlla na leen gënal fuuf fuuf fii ñu jóge xam nga te te mën naa ne kenn du rëcc ñun ñëpp dinañ leen fekki yàlla na yéex waaye mais sant yàlla rek yàlla moom lu mu def rek dafa gën. dafa gën yàlla mu def ko mais sa complice ak Mama Diarra gisoon nañ ko benn vidéo boo xam ne doon daw euh, di fuité ci internet bi euh, nga koy woyal ci Seydina Mouhamed salaa salaam te bés bii tey di bésu Seydina Mouhamed salaa salaam di weeru euh, di bésu tabaski tey Mama Diarra sa complice ak moom bokk dafa dafa doon sama yaay ba pare doon sama xarit xarit mooy maanaam moom lim ma yàq boo ñu fekkoon ñu toog lim ma doon wan lim ma doon wax xam nga da ngay xam ne kii dafa maanaam xam nga bëgg doom la rek waaw cofeel la rek man nag ma woon xaritam xam nga man dama ko xawoon a sonal nag xam nga di ko tooñ tout le mu doon sama xarit waaw waaw billaay walaay waaw te yàlla suñu borom xam na ne man maa bëggul gaaw wax rek waaye loolu lu may def la loolu dama ko loolu dama ko boole ci sama plan de carrière mooy maa Diaga loolu mu bëggoon dama ko koy defal te faa mu defal ko ko billaahi wallaahi talaahi yàlla xam na ko loolu dama koy def force waaw dama koy def ndaxte xam nga moom moom ku ko xam rek loo ko boo bépp bépp waxam rek da ci dégg yonent bi yonent bi rek di jéem a xool xam nga hôpitaux yi dem ci armée yi xam nga di xool di gëstu néew yu doole yi moo tax tey Wally tey bu melee nii Sénégal je pense que warut a bett kenn parce que dafa ñëw fekk papa fekk yaay nekk ci yoon boobu ñun tamit askanu Faramareen yàlla dogal na ne suñu xol yi sénégalais xam nañ ku ne xam na ne suñu xol dara new ci xam nga ñun nu ñu yor dañ koy bokk ak nit ñi xam nga dangay ñëw ku nekk ngay gis eh waay waay waay waay xam nga mais da ngay xam ne lii yàlla suñu borom moo ñu ko jagleel. waaw mais sant yàlla rek sant yàlla yàlla ñu yàlla yéexee ñu teew ko ay déwén yu baree bare baree bëri xam nga njaboot gi barkeel vraiment xam nga màgg dem ba ñu mën leen a ba ñu mën ñëw jëriñ ëllëg xam nga yàlla baax na. yàlla baax na tey ñu gis ne en fait fii gis nañu mel chaque année nii mel euh, ñëpp xaar di xaar Wally Ballago Seck donte euh, kenn mënul lépp yàlla rek mënul jox ñëpp sax mais tey boo gisee tey ñu fi toog yëpp di xaar ci barke Wally tey nan la lay def. waaw dafa romb mais fallait que mu dem parce que xëy na peut-être xam nga day xaw a doy waar tuuti loolu nag moom ah yaakaar naa jarul cesse gauche ak droite yàlla suñu borom moom ah mooy xool lu ko neex ci doomu aadama mu def ko te mun naa ne Wally moom c'est c'est dafa doon loo xamante ne c'est autre chose li ko topp xam nga loolu moom yàlla suñu borom rek moo la ko doon mën a toog di la ko expliquer waaye du doomu aadama xam nga. ba tax na c'est tout à fait normal te en plus yàlla dafa dogal xëy na nit ñi gis nañ ni ni mu mel xol bi ni mu rafetee ni mu buggee partagé mën na dimbali doomu aadama mën a sonn ci doomu aadama ba tax na ni da gis mu fàqee fële sax jóge ñëw te du ko xam xam nga du ñu mës a gisante mais day jóge ne day bu déggee ne rek kii pourtant day doxantu côté yi rek mun na faa toog di ko xaar parce que moom noonu la ko yàlla bindee dafa ñëw jéemul forcer dara. dafa ñëw rek tout naturellement lu mu yor nag bokk doomu aadama yi ma koy ñaanal yàlla gudd fan mu koy xolal at yi li muy gën a ñëw mu ci gën a am doole di gën a dimbali ay doomu aadama loolu nag ñun maanaam exemple la ci ñun bu bëri ba pare fierté la def ñuy gën a poussé gën yokk jom à que ñun tamit xam nga voilà maanaam li olof Ndiaye danaan euh, lu naar bu ndaw bi def ci naar bu mag bi loo ko gisee. waaw <laughs> ah, jeex na yàlla euh, ba. ak euh, waaw di leen xamal na ne que euh, tous les samedis man maa nekk five maa ngi almadi five tous les samedis bon buggoon naa jouer ci événement tabaski bi ak lendemain bi mais malheureusement nii nii nii dafa am benn business boo xamante ne maa ngi koy pare nar koo nar koo caw sénégal yi ndaxte ah bi ma génnee nam naa la ba léegi dama toog di leen koos di leen xool mais gars yi gis naa ne fu mu toll nii instant bi seen réew tàng na loolu laay waajal fu mu toll nii ba pare le 29 juin 29 juin bi benn date la biir Ndakaaru Njaay dina metti <laughs> di daani sama waay da jàmmiñal jaara busu wala mañ se jaara